mboobu euh, dañ nekk di laam-laame fan yi yëpp une loi d'amnistie mhm. euh, ñu ne dañ koy voter mhm. au nom de la pacification de l'espace politique mhm. au nom de cette pacification il y euh, la libération de plus de 372 détenus yoo xam ne jàpp nañ leen ci ay manifestation politique diggante manifestation politique alors ñu bari mu am ñu bari ñoo xam ne jàpp nañu il euh, y a même eu euh, nu mu tudd euh, levée de bouclier même de votre du, du, camp de la majorité ñu jàpp ne pour tous les actes commis mu am des morts mu am des des des, des saccages mu am des atteintes à la sécurité de l'État waruñu xëy au nom d'un prétendu dialogue politique effacer loolu yépp ñenn ñi jàpp ne la paix au Sénégal jar na ko ba ci am loi d'amnistie boobu ñu ngi ciy xalaat ku mel ni Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne dañ nekk ci ay procédure euh, ñu mën a recouvrer la liberté yow euh, moi je au président du groupe parlementaire et au au au responsable politique euh, ndax lan nga jàpp ci diggante ñaari extrêmes yooyu. merci beaucoup xam nga man déggoon nga ñu wax ne loi d'amnistie dañ koy présenter conseil des ministres bi passé. Mm-hmm. amul. man du ma wax waxu mbedd parce que jàpp naa ne waxu mbedd la comme ni nga waxee léegi je suis président d'un groupe parlementaire am na loo xamante ni su considéré assemblée gisuma ko waxtaanu ci su groupe bi waxtaanu ma ci samay kilifa su ma ci waxee damaa yàpp sénégalais yi. mais le responsable politique que vous êtes déglu ma rek déglu ma dinaa ci ñëw ci loolu. dama lay wax ne la ay loi d'amnistie yooyu ñu wax noonu pour man waxu mbedd la pour le moment. Hmm. donc awma dara lu ma ciy wax li ci des. mooy pacification de l'espace man personnellement mooy mun a je l'ai toujours dit et je continue à le dire amul homme politique Sénégal boo xam ne mënu ma wax ak moom te ñëpp xam nañ fi ma bokk Macky Sall laa àndal APR laa bokk Benno laa bokk les gens connaissent ma position li nga xamante ni moom laa gëm moom laay défendre mais pacification de l'espace je suis totalement moi pour la pacification de l'espace politique parce que sànq bi may wax ne Sénégal dañoo bëgg jàmm Sénégal dañoo bëgg mu dal Sénégal dañoo bëgg doomu Sénégal yépp dajaloo mais loolu may mun a man gëm naa ne président de la République loolu mës a dox mais la n'a en rien que man bokk naa ci ñi nga xam ne du ma mës a nangu ñoo xamante ni dañ leen a jàpp ci ay crimes yoo xamante ni nii même bu ñu amee présomption d'innocence je peux donner un exemple xam nga tey ñi nga xam ne ñëw nañ fekk kaar jël cocktail sànni ci biir man je ne considère pas que c'est des politiques. mooy l'incendie du bus de Yara pour man ñooñu c'est pas des politiques c'est de gens yoo xam ne dañ leen a war a jàpp tëj leen yoon teg leen yoon ak yu mel noonu mais li ci des mooy moi je suis tout le temps favorable à la pacification de l'espace politique ñu am des débats d'idées ñu mën a am waxtaan yoo xamante ni argument contre argument la parce que nag aussi li nga xamante nii mooy les arguments su fekkee ne war nga ko mën a wax di wax sa xalaat comme Sénégal ni mu demee parce que Sénégal c'est un état de droit la presse ku ci nekk da ngay wax sa xalaat les gens dañuy wax seen xalaat fu ñu toll donc je pense que su fekkee ne par exemple dañuy dem vers une pacification de l'espace public je ne peux pas être mais en respectant encore une fois. de plus les lois et la libération de Ousmane Sonko de Bassirou Diomaye. mais loolu awma dara loo xamante ni mën naa ko ci wax. parce que ils sont sur les de la détention justice moo ci war a def liggéeyam su leen di jàmm ba mu leen di jàpp tàgguma bu leen di bàyyi du ma tàggu la preuve le ministre de la justice tey def na une sortie wax li nga xamante ni moom moo ci xalaatam ak li nga xamante ni moom la. Euh, département am ñu def li ci des nag mooy pour la pacification je suis d'accord mais par rapport à libération de tel ou de tel autre man awma benn commentaire bu ciy def parce que nekkul ci samay prérogatives te la nga xamante ne nii moom la ci justice di def jàpp naa ne lam ci war a def dina ko